Euh, man la Daouda Dieye euh, dëkk fii ci Daaru Salaam bokk ci commission bi nga xam ni ñoom la sëriñ bi sas wàllu mbale mi at mu jot di wàccaayu màggal gi lu jëm ci wàllu communication bi man naa ko ci sàlloo euh, ndajam tey bi nag sabab bi mooy ni nga ko baaxoo di defee at mu nekk di waajal màggalu Daaru Salaam di bu am solo bi nga xam ni bi Serigne Touba jógee ci géej gi 1902 ci la fi ñëwoon gane si rakkam gi taalibeem ba maam Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm at mu jot nag njaboot gi di ko taxawee di ko màggal ren nag mu jub si war a nekk incha allah le 23 sëriñ bi joxaat ñu ndigal ci nañ setal dëkk bi laabal ko ndax dëkk la bu sell boo xamante ni ay yiw rek lañ fi sàkku te li fi waay sàkku ci yiw rek mën ko fee daje ak moom ngir sëriñ Touba moo ko fi ñaanoon. Euh, mbale mi nag wax dëgg yàlla bi ñu ci amee ndigalul sëriñ bi woote nañ ko comme ni ñu ko daan wootee. daayira yi mbootaay yi association yi mbokki taalibe yi euh, fu ci nekk mbooloo jóge nañu fa ñu xëy ci àjjuma ji ànd ko wax dëgg yàlla dugg ci ruq yeeg ruqaat yi fenn fu mbalit nekkoon génn nañu ko ànd ko ak euh, ni ma ko waxee léegi mbooloo yi nga xam ne ñëpp ay taalibe lañ te liggéeyal sëriñ bi moo leen ñor lépp li nga xamante ni noonu la ko sëriñ bëggee woon wax dëgg yàlla amee nañ ci lu kaay euh, nañ ci fàkk suuf si ci kaw tali bi ndax ku ne xam na ni tali bi demoon na ba suuf si jël ci lu bëree bëri loolu itam boole nañ ko ci liggéey bi Euh, fàkk nañ euh, si tali bi macha allah euh, am na lu tuuti léegi des xëy na yu ñuy àgg ci 14 heures di lépp dina mat mbalit mi itam fi nga xam ne fa lañ opéré woon ba gis ñi ay jali mbalit ña nga fa foofu dugg nañ fa ànd koog mbooloo mi ba jël nañ mbalit moom mi incha allah fas yéene koo génne dëkk bi lépp dëppoo ak bëgg-bëggu sëriñ bi ndax màggalu Daaru Salaam ganal ak Serigne la woon te Serigne Touba bi biñu annoncé maam Cheikh ni ko mi ngi jëm si Daaru Salaam maam Cheikh Anta lu mu mën def na ko lu mu mën ci bernde def na ko lu mu mën ci laabal dëkk bi def na ko doon woddu garab yi ak ay piche doon lal ay ay tiis ngir Serigne Touba bu bañ a jaar ci suuf si yooyu yëpp doon na ko def kon bu egsee njabootu Serigne Gaawaan pas-pas boobee Serigne Touba Serigne Gaawaan amoon Serigne Touba pas-pas boobee la ñuy wéyal saa s nekk moo tax macha allah sant nañ mbokk yi nag bu baax a baax ndax bi Serigne bi wootee wuy si nañu tey ab taalibe loolu rek la am ñi nga xam ne ñun ñoo yoroon liggéey bi itam nag dañ ko coordonné ñu ngi jotal cant ci mbooloo mi bu baax a baax ndax ñooñu ko yombalal bi sëriñ bi joxee ndigal ñu leen sëñ bi nee na rek la daa suñ kaat di daanu ñëpp defañ ko seen yitte kon loolu mooy solos tey ndaje mi setal dëkk bi ngir waajale ko màggalu Daaru Salaam